الحمد لله الذي قضى وقدر رفع ووضع وأعطى ومنع وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير يقول جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله الخطبة في الابتلاء سنة الله في الخلق bokk bi ni ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala moom ñuy dogal yàlla mi yëkkati ku ko neex yàlla mi jël ku ko neex dénk ko jëlaat na ko dénk ko yàlla mi jox ñi di xaj na ko des ndax moom yàlla mooy ki am kàttanu lépp ñu ngi seen la amul kenn ko yow jàmm ci dëkk bu moom yàlla subhanahu wa taala te ñeeru ñu koy bokkaale ak kenn di seede ni suñu sama Muhammad alayhi salaatu wa salaam moom mi wax ni yéemu na ci biir biir nit ñi ndax kii nga xamante ni mooy aji gëm bi mbiram yëpp ko ak yëpp la ñuy dégg suñu bopp leen dégg kàddu yàlla bii di wax ni tey yéen yaa ngi doon na ngeen ma ragal dëgg-dëgg ragal rek bu leen baax lu da ngeen moom wax doon jub mbokk yi suñu xutba yi tey bi idnillahi taala ñu ko fas yéene amal ci lii di al ibtila sunnatullahi bil xalq mooy natt natt muy loo xamante ni yàlla moo koy tëral ci doomu aadama nattu ak tëral li la yàlla di tëral ci doomu aadama donc yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu ne inna ja'alna ma ala al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala man maa leen defal lépp lu ngeen soxla ci kaw suuf ginnaaw bi mu wàccee ci kaw suuf wante nee na dañu koo defal ngir mu ñuy def ay natt ay épreuve mu waxaat ci suuf bi mooy bi baax billahi min ashaytan rajim tabaraka alladi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladi xalaqa almawta walxayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala waxtu foofu mun ki nii moom yàlla subhanahu wa taala ne moom mooy ki ñu wàccee ci kaw suuf wante mu sàkkal ab diir boo xam ne ci lañ fiy def mu sàkk dund sàkk dee wante li tax mu wàccee ci kaw suuf mooy li yabluwa ay li yaqtabi rabbi ngir mu teggal ñu ay épreuve yoo xamante ni kenn ku ci nekk ak na sa natt bi toll donc yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu ngi wax ci alquran bu sedd bi ni wala nablu annakum bi shay'in min alxawfi waljuuci wa naqsin min alamwaali walanfusi walthamarat wa bashiri sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون yàlla suñu borom neen dinaa leen natt yéen doomu aadama yi ci lenn ci lii di ragal xool ba xam yow ni ragal nga kenn ku dul yàlla wala ragal nga lenn ku dul yàlla dinaa leen natt it ci xiif famine nattoo la nga nekk koo xamante ni ku ñàkk nga wa naqsin min al amwaal yàlla mu ne it dinañu nattu ci suñu alal nga amoon alal mu jekk saay alal ba saaw wala mu dénk la sax poste poste boo xamante ni ci sa dontaas bu nga ne mu jékki-jékki wàccee la ci boobu leen poste yàlla mu ne dina leen nattu ci loolu dinaa leen nattu it ci al al nas al anfus ci ci seen bakkan yi ma fekk ku jege leen lool ci sa njaboot ki leen la wër ma jël ko man yàlla dinaa leen ci natt dinaa leen natt ba bàyyi leen ngeen bay ba seen tool bi rafet meññ ma jël ko def ko lépp muy furaas yàlla mu ni dinaa leen natt ci yooyu leen mbir yëpp waaye dinaa ci bëggal ñi nga xamante ni su ma leen tegee natt yooyu la ñuy génne ci seen lan bi mooy dañ naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun ñii de yàlla dañ ko lii muy alal muy poste bi muy mbay bu rafet bi muy lépp mu la dañ ko ci alal te mu jël ko moom yàlla moom moo la sax ci moom nga jóge moom moo la joxal yooyu leen alal yëpp ñi ngay gane si àdduna bi ndaale woo ci leen mu ne ki may bëggal nag mooy koo xamante ne dafay delloo wax yëpp ci inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ci yàlla laa jóge woon te ci moom laay jàll lii ma ma joxoon lépp it mu teg ma ci nag mooy ki ko sañ yàlla mu ne ñooñu nag mooy ñi nga xamante ni ëllëg dinaa leen dëggal man yàlla subhanahu wa taala kon mbokk yi nag mënul nekk ci kaw suuf ndax yàlla mu ne sunnatullahi fi xalq mu waxaanoon yàlla ci suratul ankabut mu ne ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladina min qablihim فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين yàlla subhanahu wa taala mu ni ndax da ngeen toog yéen nit ñi dina leen bàyyi rek ngeen naan gëm nañu yàlla te man yàlla du ma leen natt mu ne dinaa leen natt comme ni ma doon nattoo ñi leen jiitu woon ndaxte ci natt yooyu ma leen di natt ci laay xamee ñi nga xamante ni seen gëm-gëm wér na wala ñi nga xamante ni seen gëm-gëm la mbokk yi yàlla subhanahu wa taala nattu ñi li ñuy teg li tax ñu koy teg mooy ngir xool suñu pas-pas ci moom suñu gëm-gëm ci moom ndax nangoon nañ ko wala nangoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ni ñi nga xamante ni ñoo ëpp natt ci kaw suuf ci bindee ñu mooy yonent yi ak anbiya ndax dañ ko laajoon ne ko ayu nas ashaddu balaa ana kan ci nit ñi mooy ki nga xamante ni moo gën a metti ay natt bu ko yàlla di def yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ni al anbiya yonent yi nañ ko jëlee ci moom alayhi salaatu wasalaam laataa moom gane àdduna fekk ko wër juróom bu góor ba mu demee ba am juróom benn at yàlla jël ko juróom bu jigéen ba muy dem ba am huit ans yóbbu nañ am ba muy am douze ans ci treize ans laataa bi majeur lépp lu ko jegoon yàlla jël ko mu dem ba ñuy tuddee al amin ci dëkk bi yëpp mais keroog ne yàlla am te natt yi tàmbali wàcc moom moom ak lépp lu ko wër mbokk yi alayhi salaatu wasalaam dundam yëpp ba bu ñuy faatu ay natt ndaw moo tax mu ni al anbiya yonent yi ñoo gën a rëy natt mu ni summa al amsal fal amsal ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoom it seen pas-pas pas-pas la gu wér ci yàlla ñooñu foofu yàlla di leen teg ay natt képp koo xamante ni yaa ngi waaxu di guddi sa borom ci ay ndigalam ñu bàyyi ay tereem fa sa gëm-gëm toll ca yàlla noonu sa natt lu toll ci moom mbokk yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi wax ni ida arada allahu bi abadihi alxayra ajjil lahu alcuqubata fi dunia mu ni jaam bu yàlla nammee ci moom yiw ëllëg mu fay ko ëllëg yowm alqiyamati fay bu rëy nee na da koy teg ay natt fii ci kaw suuf façon natt bu nekk nag ci li ñu tudd léegi mu ni nag wa ida arada allahu bi abdihi sharra amsaka anhu bi dambihi xatta yuwaafi fi bihi yowm alqiyama bu dee yeneen yàlla boole la cee boole la cee itam nar naa koy ëllëg da lay jëlal adduna bii nii boole la ko nga dund fi dund koo xamante ne daanaka loo wut loo fa doon faj lu nekk nga ciy dem ci lu sa bakkan bëgg yàlla mu ne ñooñu noonu dama leen bàyyi ci noonu ngir ëllëg seen mbugal nekk mbugal bu tànn kon yow mi nga xamante ni yàlla daf la xañ wërsëg wér-gu-yaram jël ci say jege ñaale ñu la gën a jege sa njaboot loolu lépp yàlla daf la koo teg ngir mu nattu la li yaxtabirakum te li nga xamante ni moom la ko jullit bi muñee di ko amee ëllëg yowmal qiyaam ngir yàlla fekk ko mooy lii di as-sabr yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ni maa yusibu muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala xusnin wala ada wala xammin xatta shawkati yushaka illa kafara allahu biha min xataaya nee na doomu aadama amul lenn lu koy dal ci métit ci coono yoo xamante ni lii feebar la lii ay kër kër la boo xamante ni kër moo la jàpp mu ni ba ci njàkkaar boo xamante ni bu ñu buub sa bopp la wala ay tolof tolof yu àdduna mu ni ba ci sax lenn luy épin moo xam ak puso la wala lenn lu la jam nga nga daawoo ko lii di muñ lu dul ni yàlla lool noonu mu la teg yépp da ciy fóor li nga xam te moo nekk say bàkkaar da ciy fóor say bakkaar waxal na alayhi salaatu wasalaam la yazaalu balaa bil mumin wala mumina fi jasadihi wa fi maalihi wa fi waladihi xatta yalqa allahu wa ma alayhi min min xatiyati yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne doomu aadama du day mukk di dékku ay natt nga ne ab jullit ngay dékku ay natt natt yoo xamante ni yii ci sa sa sa jasad la maanaam sa wér gu yaram wala ci sa alal wala ci sa njaboot yàlla di la ci teg ay natt lu koy muñ mu la ciy teg ay natt lu koy muñ mu la ciy teg ay natt nga koy muñ lu dul ni yow ma xeexati da ngaa gisanteeg moom fekk loolu lépp da ci doon fóot say bakkaar comme sa fekk mbokk yi yii lee nag mbir te ay natt kenn bu ci egg ci ay daraja yoo xamante ne daraja yu kawe la lu dul koo xamante ni day mun mbokk yi lii di mun am na ay fawaakit ay njariñ yu nekk wala lii di ay natt am na ay njariñ yu ci nekk njariñ yoo xamante ni moom la ci jëpp tudd mooy lii di mun dafay fàttali doomu aadama bi ay ahdaafam ay objectifs yi nga xamante ni moo tax yàlla wàcce ko ci kaw suuf ndax amul lenn lu la yàlla teg ci natt loo xamante ni sax ndax yàlla mooy ci suratul mulk alladi xalaqa al mawt wal xayaat kon lépp lu la mën a teg ci ab natt rek xamal ne luy jeex la ndax àdduna bi dara sax lii ngi mën kon daf lay fàttali say ahdaafam ci li tax yàlla bind la fàttali ci kaw suuf ngir nga jaamu ko ngir bala ngaa wuyu ji lépp mën na la kaa fóotal ci ay bàkkaar ëllëg boo demee mu fay la di aljal day xaar mu ne innama yuwaffa as-saabirun ajrahum bi xayri xisaab damay fay yi nga xamante ni ñooy yëngu nit ñi mooy ëllëg yow nag yàlla di mën a xisaab bokk na ci ba tey ci fawaati bi mooy ak tafkiir bi nicmati aafiya yàlla bu la tegee lii di feebar fekk lu ko jiitu woon yaa ngi ànd ak sa wér gi yaram sa cawarte nee na ba nga tëddee feebar rek li sa xel di njëkk a dem mooy da ngay tàmbalee ñee ñu la woon ci ñoom li ñuy nekk ci activité kon lii di feebar lii di nattu yi daf lay fàttali xéewal yi nga xamante ni yàlla joxoon na ba bu la yàlla joxee poste génnee la fa nga toog xool naka gérer wala naka gérer loolu daf lay jàngalaat ni ah kon naka nii la gëfi dem ndax ba nga cay nekk mënoo ba a xam lépp waaye boo ci génnee ba duggaat ci nag ci ngay soog a xam ne ah kon naka de alal nii lañ ko war a sànni naka de kon soo wóoree am na sama liggéey rek nii laa war a jaamu yàlla naka te kon sama njaboot kii ma yor nii laa la war a tege ci yoon yàlla kon lii nga xamante ni moom mooy natt yi dafay fàttali doomu aadama xéewal yi nga xamante ni moom la ko yàlla joxoon lii di ay natt it mus mbokk yi daf lay yóbbu ci ay daraja yu kawe ci daraja yoo xamante ni bokk na di jox léegi ni yàlla mu la may fayee ñi nga xamante ni bii la yowmal qiyaamati ay buñ bañ la mooy du ma leen xisaab أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bi ñu santaate yàlla subhanahu wa taala julli selmal ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu war ba tey ci biir xutba yi al ibtilaa di nattu yi ñu xam ne yàlla nga xamante ni mooy tege nattu yi ak nattu lu mën a doon moom moo ñu wax ci alquraanul karim inna maa al usri yusra inna maa al usri yusra jàppal ni yow jàmm lépp nag bu ma la tegal xamal ni li muy métti métti métti facilité bi mu ci kanam ak yombal fii ci kaw suuf te lu bokk ak li nga xamante ni ëllëg yombal qiyaamati moom laa lay fayee muy aljanna waaw dafa bokk ci li nga xamante ni boobu doomu aadama bi amee natt wàccee ci kawam lam te war a def mooy addu'a mooy di ñaan yàlla nag mu woyofal ko natt bi nga xamante ne moom la ci kawam ndax yàlla bi nga xamante ni moo la teg natt moom moo gën a xam lim la teg Ibrahima alayhi salaam wax yàlla tegoo ay natt épreuve yëpp nekk ci kanam képp ku ñëw di ko fekk si di ko bëgg a indil wol lam lay xamal mooy ni yàlla bi ma teg lii bi nga xamante ne moom laay jaayante ci ummatan moom xam na li ma dal moo tax yàlla subhanahu wa taala fekk ci li nga xamante ni moom la doon teg ci ay nattu wante jullit bu nekk ci ay nattu li mu war a def mooy di ñaan delluwaat ci borom subhanahu wa taala mu bokk ci leen li nga xamante ni it doomu aadama bu am ay natt yu nekk ci kawam war na ci góorgóorlu mooy al istixfaar muy di tuub di delluwaat ci yàlla ndax léeg-léeg nit ki dina am ay natt yoo xamante ni la ko yóbbee mooy bàkkaar boo xamante ni faw yàlla fóot ngir yàlla fóote ko bàkkaar bi nag faw mu delluwaat ci yàlla ak bu ñu wal ginnaaw ngir wan ne ko ni yow dong yaay ciy jéggal yow dong yaay ci am kàttanu lépp kon maa ngi lay ñaan kon lii di ñaan ak di jéggul da bokk ci li nga xamante ni moom la doomu aadama war a delluwaat ngir yàlla jéggal ko ci nga xamante ni moom la ko ci kaw suñu ko jaay yi nga xamante ni demoon nañ ci bayti bàyyi xaraam mu nekkoon jihaad ci ñoom mu nekkoon jihaad ci ñoom ñi nga xamante ni jot nañoo dellu si ñu leen di ndokkeel ñu ñaanal yàlla seen aj googu yàlla nekk ajjal mamnuura ñuy ñaanal ñeneen ñi nga xamante ni yoon bi ñëw yal na yàlla egg si leen ak jàmm ba ñu defante seen njaboot yàlla dafa leen xëcceel mabruuran képp koo xamante ni ab jullit la nga mës a dem ak yàlla na yàlla jéggal la seen bakkaar nangul la sa aj boobu ndax al hajju mabruur laysa lahu jazaa'un illa janna képp koo xamante ne demagoo it yàlla na yàlla yóbbu la ci baytullahi haram yàlla yàlla defal ñu jàmm ci suñu réew defal ñu jàmm ci àdduna bi te lépp di ay natt nag fitne fii am yëpp ay natt la ñu yàlla teg te dañ koy surmonter mooy ñu nangu ko ngir yàlla indil ñu lii nga xamante moo nekk jàmm yàlla yàlla dafa jàmm ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك انك انت الوهاب ربنا لا تزغ انفسنا وان لم تغفر لنا وقد خلنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الى صراطك السبيل صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الاخره وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قم الى الصلاه